mi ñoo leen di gërëm di leen sant tey jii ni ñun ndaw jeune leader du département de Matam ñoo toog tey di wax ak yéen ci luy xew ci suñu département temps yi lay passé dégg ngeen dafa am ay yenn nit ñoo xam ne ay jaganaale maître Malick Sall lañu ñoo génn créer lu ñu tuddee kayam di créer loo xam ne ànduñu ak structure du partie bi ñun nag jeune leader ñu ngi wax département de Matam benn coalition la am mooy coalition benn Bokk Yaakaar benn ànd la ñu am mooy ànd ak suñu coordinateur département de Matam mooy honorable député Farba Ngom te nag du ñu nangu mukk am ay structure am ay fissure yu demee feneen ñun suñu sago suñu yitte mooy nañu ànd man ko doon benn gunge Farba Ngom parce que gunge Farba Ngom Macky Sall nga àndal ku créer leneen nag ak feneen yow sa bopp la concerné tey jii nii nag dem nañ ba wax ko ñoom ñoo représenté liste parallèle yépp ci département de alors du dëgg bu dëgg jotee nag dañ koy wax ñi defoon liste parallèle yëpp ñoom ñëpp mankoon nañu doon benn ànd ak Farba Ngom ñoo ngi ñoo ngi wax tamit jàgg naa le Maître Malick Sall nañu xam ne 2009 ba tey jii nii Farba mooy coordinateur departement de Matam te moom la ñu àndal département 10 communes yëpp moom la ñu àndal te. saa yu ñu àndee musuñu parte élection kon nag benn campagne du am euh, benn campagne moo fay am te benn élection moo fay am ñun ñëpp dañu mànkoo doon benn ànd ak Farba Ngom ci mujjee bi nag ñun ci département bi lañu bokk ci parti bi lañu bokk te xam nañu aussi ñi bokk ci parti bi suñu yëg-yëg suñu lépp mooy président Macky Sall gagné élection bi 31 euh, juillet 2019 2021 22 bu paree ci loolu am na koo xam ne ci yeewu askan wi la bokk du mu tudd turam yoonu Fuuta nag du yoonu Sweet Beauté Sweet Beauté mu ngi fii moom suite Beauté la xam Sweet Beauté lu miin nee na nag mu ngi ñëw def pré campagne Fuuta Fuuta nag titre foncier Macky Sall la ñu ngi koy xaar de pied ferme te nag niñ ko xamal benn affaire bu yeboo mu yem ci Ziguinchor sooram bi Wuro Sogi Agnam Thilogne Boki Diawé maatam Ogo ñu ngi koy xaar bu fekkee góor la ñeme lu may wax na ñëw maatam ñu ngi koy xaar maa leen di gërëm di leen sant journaliste yi merci beaucoup